مجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم مولانا وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أبدانا مختار في الخدم لله در مجي السلام عليكم mbokk jullit yi mawlidahu nga xamante ne fa kullu man xatadara mawlidu afdalil wara muasiman mu bishara bi aw laxami loolu la wax nañ ko màggal ci sunna taxzimuhu bi sunnati yaquduna li jannati moo nuy wom mat ba jugo àjjana lii nag su ngeen ko gisee xam ne nag jàmbaari sëñ Tuubaa ji jëfati na defoon ci màggal gi mbale mi mu taxaw ci Ecotra gépp jóg camion yi jóg ñu ne ca lay yem mu jël lu mat juróomi téeméeri nag ak lu ko ëpp dal di day julli ci sunu borom waaye ci yonent bi lañuy ñuy sëlmale muy gàmm muy président Abdoulaye Sylla di jàmbaar joo xamante ne ku gis nag yi xam ni camion yaa ngi roñ di ñëw 3000 nag la jël ne da koy séddale Sénégal gépp l'islam bi moom day sëñ Tuubaa yaakaar waaye amul fenn frontière buñ jógee fii dinañ dem Tiwaawan jaar Njaasaan dem Cene ba jàll ba Thiès dem Jurbel dal di dem ndakaaru ndakaaru nag am gox yoo xamante ne yu fasantikoo la Masaalikul Jinaan nan nu xaar fépp foo xamante ne nii bi sukkurin aw la xam yi sëñ bi nee na nañu màggal guddi gi ci lu saf suukar ak lu ànd ak ndawal ñii ñii dompat di seex sax dañ leen di fay waaye am na ku leen ko yombalal kooku mooy président Abdoulaye Sylla yàlla na fi yàgg yàlla na wér lii la lislaam soxla lii nga def neex na sëñ Muntaqa lii nga def neex na njabootu sëñ Tuubaa lii nga def waaye yaa ngi ko tàmbali woon grand mbasam nga ñëw toj ko barabu sëñ Fàllu bi li nga ci defoon doy na waaye nag nee nga tey kuy gàmm yaa ko war a jox ay nag eh na ma ñëpp topp fépp fu Sénégal fu nuy gàmmoo amatu leen problème mu ndawal Abdoulaye Sylla dina ko rek loolu nag sëñ Saaliw rakkam ju baax ji nga xamante ne ku wóolu yow la ku nu wóolu ba wóolutun la yow la kuñ dem ba wóolu la gën laa wóolu yow la ana lan nga ma a wax en tant que le bâtisseur un homme de conviction ci sa mat waaye nga def ko jëwriñ def ko lépp te xam ne ku ànd ak moom liggéeyal yàlla. na wàllu yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sëñ Mamor maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar sama mbokk taalibe bi bu baax a baax a baax sëñ Massar maa ngi ziar bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di kontaan yow moom di am fierté gis la te sa sa rencontre ak doomu aadama bu nekk njariñ rek lañ ciy jëlee ndax xam-xam bu sell bi. ak wax ju tegu ci tax na daal président Abdoulaye Sylla moom lii moom lu miin la te tàmbaliwu ko tey te fas yéene wu koo dakkal yëpp tey dëgg yàlla atta ngi nii ci ginnaaw mu koy mu koy def lu mu ñu waxoon rek jëwriñ président Abdoulaye Sylla mooy fépp foo xam ne nii yéen nañ fa tàntal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinaa fa fas yéene yóbbu sama ñaq ñaq li nag mooy lii teraanga yi nga xam ne nii fas yéene nañ ko tàmbali tàmbali ji ko tey jii di war a yóbbu Tiwaawan buñ jógee Tiwaawan dem Kaolack buñ jógee Kaolack dem Njaasaan dem Cenaba jaar Thiès dem Ndakaaru Masaalikul Jinaan xaar leen ñu mbokk taalibe yi buñ jógee foofu dem euh, Daara Jolof dem Louga jaar wet googu yëpp maanaam fépp dëkk ci gàttal fépp foo xam ne nii am nañ yéene màggal fa guddi gii rek Ablaye Sylla dina fa fas yéene wane boppam ba tax na daal loolu daal ñu ngi leen ci tàllal suñuy loxo suñ Mamoor ngeen ñaanal suñu waa ji nag parce que suñu waa ji yàggam fi nag am na njariñ bu fi yàggee rek lépp dana baax waaw ba tax na daal ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay. Ablaye Sylla nag wax dëgg yàlla ku xam-xam taxawaayam dara waru laa mën a jaaxal waaye ko xam waajuram tamit wax dëgg yàlla digganteem ak Serigne Saliou jëf ju mel nii bu ko defee dara waru laa mën a jaaxal ndax li wolof di wax ni butéel bu nekk la mu def la la kubéer gay xeeñ rek. ndax wane na ne sëriñ tubaa dafa jël dundam gépp jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa tagg ko ci ci ci ci ci ci tarbiyo ko ci liggéeyal ko ci sonn coono boo xam ne lépp ngir yonent bi bëgg rek kon bu ñëwaatee ci guddi gu sell gu mel nii mu jëf ci jëf ju mel nii jóge ci màggal Touba defaat kon mel na ne xam na fu Serigne Touba tegoon yonent bi sallallahu alayhi mu tegaat fa tànkam rek dina jëf gënu ko rëy kon nag dañuy ñaan rek murid yi jullit yi umma islamique bi yëpp nanu ñaanal Ablaye Sylla sama borom dolli ko xéwal te dolli ko sutura te aar ko te musal ko ci li nga xam ne lépp luy yàq la te nit la koo xam ne ku baax la ndax nit bu fekkee dafa am yéene dimbali doomu aadama yi rek kooku dafa taxaw taxawaayu sunu borom ci jaami yàlla yi. jëf ju mel nii ku ko mën a def ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi borom wax ne ku ci def benn dërëm tabaxal nañ na àjjana nga jël jëf ju toll nii def ko ci kon la ko sunu borom di fayee yàlla na ci jullit ñëpp xaj yowmal xiyaam kon ñu ngi ciy sant bu baax te di ci gërëm di wax uh, yemale na tarixa yëpp ci réewum senegal ndax jëf ju mel nii boo ko defee wax nañ ni fii lay nag yi di jógee ci Touba dëkk bu sell bu barkeel bii jëm ci Tiwaawan kon wane na ni Touba ak Tiwaawan benn la mu jël këru tarixa yëpp def leen ñuy benn kon wane na yoon wi ne Touba Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xam ñaar kon ñu ngi ñaan na ñëpp roy ci moom te xam ne lu baax rek la bëgg nit nag ku bëgg lu baax lu baax rek ngay am ndax suñu borom moom moo bind noonu amut lu bon képp koo xam ne da jëf lu baax jëm ci moom suñu borom moo lay tatagal boppam moo lay tertal boppam kon yàlla na sama borom àggale lépp te fay yiw ci barke Sëñ

comme ni ma leen ko waxee woon rek noo ngi nii ba tey ci suba ba tey noo ngi euh, fii doon xaar nag yi camion yi ñëw na noo ngi nii di euh, roñ di mu jëm ci euh, ngeen camion bu ci nekk lii la la roñ ci ay nag kon guddi guddi Tiwaawan nañ ko xam maa ngi fii ci deralu ndindi ndindi lañ ne nii waaye nañu xam ni guddi guddi rek Tiwaawan incha allah. fi rasuli tawi لوزن دلا تسيم مولانا وسليا يا إلهي وجزيا أبدا مالكني أنا gis ngeen ko noonu bokk jullit yi bi nu yebee nag yi ba noppi nag noo ngi nii euh, àndandoo jóge fii ci jumaayu Cheikhul Khadim ji ziyaar ko ci barkeb rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ci daraja yi guddi gu tedd gii di mawlidi nabi waaye ñoo nga jëm nag tiwaawan tiwaawan nag buñ fa demee fekk fa niti diine waaye nag président Abdoulaye Sylla ci jëfam ju rafet ji nga xam ni yàgg na koo def këri diine yëpp kenn amul fenn frontière kenn du ne ne gisuma ko te bu sañoon ñoom ñëpp euh, mu feesoog ñoom fii waaye nag xëcc bu daggul dana gën a dikk kon képp koo xamante ne nii gis nga jëf ji na ko ñaanal ndax lii mooy valeur Sénégal lii mooy qualité lii mooy conviction lii mooy ngëm kon nag ilaa Tiwaawan bi nu jógee tuuba bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa salliyan ya ilaa أبدا مدينة منورة محمد مدينة مختار في القدم بدر أعطيت سما قد كان يسمع تواون كر سرين مودو موم الحاج عبد العزيز دباخ موم سيدي اج مالك Moustapha noo ngi ci dëkk boo xam ne lislaam ak mbaax ak cell fii la fekk baax sëñ Ablaye Sylla Ecotra gis nga nag yaa ngi noonu di wàcc muy lu mat euh, daanaka ñaar téeméeri nag ak nangam yoo xamante ne nii dañ koy séddale kilifa yi nii la ko defee woon ci màggal gi mooy lu am solo jox ko njabootu sëñ Tuubaa gi te noonu la koy defee waat ci gàmmu yi fu gàmmu ne foog na ni moom moo ko war a def waaye loolu yaakaar naa lii neex na Sidi Aj Malick waaye neex na mbokkam ma Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul neex na it borom bis bi naa Seydina Mouhamad neex na sunu borom subhanahu wa taala sëñ Moustapha loo may jox ci loolu waaye nag ki nga xam ne moo ànd ak ñun boobu ba tey bàyyi temps am lépp ne dann magam kii lambi toppe moo ko upp muy Serigne Saliou ak euh, Serigne euh, Mame Thierno ak euh, ñu fekk fi nag jàmbaar joo xamante ne suñ Cheikh Ndiaye bokk ci Ecotra di jàppale suñ Ablaye bokk ci ay homme de confiance am waaye lii mu ne ko teg naa ko ci sa loxo ndax yaa ma nekkal ci dëkk bi sëñ sa Kane looy wax loolu euh, yaa àddinaa lay seetaan. sëñ moom lu baax a ko ñor ndax ko xool jëf ji xam ne ki jëf lii euh, li Serigne Touba waxoon ci gàmmu mbokkam mii wax ko ñu baax ñëpp wax ko moom loolu lay topp fa man yoasi mawlida xayral bara yaa ahmada faka sahidin sahida badaran bi xayri wa amee waaye képp koo xam ne tamit màggal nga bisub gàmmu mel na nga ku teewoon badar ak unay yow ma badrin wa nasar xayral wara mu faxi mi ànd ak yonente bi ci xare ba mu doon def daal ne képp koo xamante ni def nga ci benn dërëm mel nga ni tamit ku ànd ci xare yooyu kon ki def lii moom xam na ni ki euh, ki muy defal am na pay mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag jaare ko ci ñi nga xam ne ñooy jëwriñu yonent bi lii nga xam ne mi ngi koy def te yàlla rek tax ak yonent bi ak jëmmi sëñ Tuubaa at mu jot yàlla ko gën a man ak rakam ju baax jii di sëriñ Saliou ak euh, sëñ euh, sëñ Cheikh Ndiaye mu baax mii ñëw fekk nga xamante ni koo gis ci àddina muy dem rek di def lu baax sëñ Mamor faaw am ñu ko yàlla booleel ñoo xam ne ñoo koy nekkal ci terrain bi di ko jàppale ci liggéey bi ba liggéey bi mën a àgg fa mu jëm. président Abdoulaye Sylla dafa def ci këram def ci ay mbokkam naam taalibe maam Cheikh Ahmadou Bamba la mais Tivaouane ay mbokku deretam ñoo xam nekk donc mu teral leen teral kilifa yëpp kër kër yëpp la teral. kër képp ku sant si dinañ fa dugg dinañ lay yóbbul sa ay nag dinañ la defal xeetu teranga yamul ci nag yi kese dinañu def ay xeetu teranga ci kër sëriñ sëpp ak ci kër képp ku sant si bi lii nag du ne du lu ne guléet c'est pas la première fois donc ñu ngi bi yoon mun naa ne ñu ngi si suñu quatrième édition di ko def chaque année ñu def ko donc euh, gàcce ngaa la ma président Abdoulaye Sylla gàcce ngaalaama euh, ay mbokkam yu mu fi fekk gàcce ngaalaama mu bokk it mooy kër maamu Cheikh Ahmadou Mamoun donc daal Abdoulaye Abdoulaye national fi sha'rihi rajalun warahbu rahin wa shafnul kafi wal qadami wa salli ya ilahi Seydi El Hadji Malick ne anna muhammadana mukhtar fil qidami wala laha baax yàgg na fi waaye lii sëñ Ablaye Si la def jaar ko ci xaritam bii di homme de confiance am ngir mu séddalal ko li njabootu Seydi Hadji Malick ana lan la ma ci waaw Mamor Ablaye Sylla na nam daan def heure bii daaw la ñu toog ba yàgg rek ñetti camion garé ñu def ci deux cent vingt bëf ne Ablaye Sylla ko jox xalif général di Tidiane ak ku mu bokkal Cheikh Seydi Hadj Malick ñu ne aka mën a ne lu nu woote juddug yonent yàlla moo màggal ko képp koo xam ne yaa ngi ci jóg di ci yëngu rek yaa ngi liggéeyal rasulullah yaa ngi liggéeyal mag ñi waaye rawatina nag Cheikh Seydi Hadj mi nga xam ni moo waxan ne ala azimu laylal wiladata xisbatan isa lam yakun naxwal xaraamil odulu sa sédaaj maa def ni woon ay waay adduna bi ay waay afrique ay waay europe ay waay doomi julit ñi jóg leen màggal juglu si ci mu muhammad ndax jar na ko ku mu doon ci ñun rek leer yoon ci yàlla muhammad tax nga am kon bu Ablaay jógee sotle mag ñi démb dellu ca cosaan xam ni bu ñu wootee guddi googu jamono ju ne lami laaj na mu tolloo tax tey yaakaar naa ko Euh, daral bii nga xam ni mooy euh, daralub Cheikh Seydi Hadji Malick bu alaaji Abdoul Aziz Dabakh bu Cheikh Seydi Hadji Malick ñu wàcc fi teraanga ji ni jox nañ ko xalif général ak ak i njabootam ak i bokkam mën naa nekk Ablaye lu mu yuutu yàlla na ko jot diine jëpp la teral na sépp lu dundal waaye nag yaakaar naa ni tey ëttu Cheikh Seydi Hadji Malick képp ku koy bëgge ñëw fekk angaar bi ñu nit doomi senegal doomi réew mi doomi jullit moo def teraanga ji sa yaram dina daw mboolem lu Ablaye di di yóotu mu gën yal na ko yàlla jàppandal teewaay bi nii ñu ko teewee yàlla nañ ko teewaat déwén yu bari ànd ak wér ak fekk ak tal mucc ci biir ak ci biti yàlla defal ko ndam lu faw xa ko njortam bi jaay rasulillah. sëñ si Sylla yàlla na nga gudd fan yàlla na nga wér yàlla buñ seddale dara sa ginnaaw li nga bëgg ci réew mi yow xam nga ko loo ma sàmm jëli nga ko indil ko réew mi yàlla nañ ko jariñoo ci darajay rasulillah lu fi xewaat rek dinañ leen ko wax allah. gàmmu 2024 édition masalliyan ya ilahi wajziyan abadan anna muhammadan المختار في القدم مولانا وسليا يا jaziyaan dellusiwaat ak yéen ci liggéey bu màgg bu am solo bi nga xamante ni ñi ngeen ko àndoon ak euh, suñu waa ju baax joo xamante ni taalibu Serigne Touba la sénégalais la murit saadix la kook mooy kan Serigne Ablaye Sylla mu baax mi nga xam ni gis ngeen taxawaayam ci réew mii ñu nekk muy senegal ak li ko démb ñu àndoon ak yéen dem fee ca dëkk bi nga xam ne mooy dëkk Mame Seydi Hadji Malick di Tiwaawoon ngeen gis liggéey bu am solo bi nga xamante ne def nañ ko fa ànd kook sëriñ Mamor Mbaye yoonu géej gi waaye ànd kook suñu caméraman Serigne Mame Thierno ak sëriñ Salihu mi nga xam ne mooy rakam am na ay camion yu jub am nañ dëkk yuñ jëm dinaa ci ñëw ak yow waaye camion bii ci suñ ginnaaw boo ko xoolee xam ni war naa def nag yu bari yoo xamante ni ma nga jëm boori Ndiassane waaye jëm ci dëkk ba la nga xam ne mooy Thiénaba waaye sëñ Mamour bala ñoo sori rek liggéey bu màgg bu am solo bii nga xam ne sëñ Ablaye mi ngi koy def te yàlla rek tax mu di ko def ak yonent bi ak Serigne Touba te te saa bu jugee rek yu mel noonu moo xew mu jógati nag àndaat ak liggéey boobu nga xam ne moom la fas yéene def sëñ Mamour lan nga ciy wax mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo yow ci liggéey bu am solo boobu. Moustapha guddi gii ki ci feeñ keroog bi mu feeñee jamono boo jóg jinax sax romb na muus ne ko duma la laal tey Seydina Mouhamad moo feeñ jamono. waaye nag ndekete Abdullahi mooy jaamub yàlla yàlla dina dem ba jamono mu tàggatal ko koo xamante ne xol bi joxe moo ci ne te dana ko am am na reer deñ nag réer waaye nag ne tey gàmmu yëpp des na tuuti maa koy financé dégg nga nag yi noonu xam nga ni yii nag ku nu ko jox nga gàmm ku nu ko jox nga sawara woo ñëpp te Moustapha mi ngi ko defee ci moment de crise Moustapha heure bi daaw nag yi bari na ci dëkk yi ñi bëgg parrainage ñëpp gis nañ seeni nag waaye ren bi dara xewul jënd jëf lañ gis ku koy def muy président Abdoulaye Sylla ku man nag na def ku man defal attention waaw màggal gii passé mu ñëw xool ñu xool opéré dëkk bi waa Ecotra jóg pax mu nu gis sakku camion yaa nga basé woon fële di def la latrik di def tali defaraat tali yi ñu ne loolu doyatul mu ànd ak Baay Faal ci mbale mi ñu ne loolu doyatul mu daal di jëlaat nag yu yi di ko seddale ba nag yi màggal gi léeg-léeg dañuy toom yaa kenn daal di ne màggal gi de weesu na waaye gisu moon sama nag ñu daal di yenu nag yóbbul jii jëf ku ko jëf te ñun ñun ñun lu baax rek ñor na yonent bi ñor na Seexul Xadiim ñor na faaw nu guddi guddi njaasaan guddi guddi ban heure jot xoolal ma sa téléphone une vingt cinq fa la ñuy dem bu ñu fa jógee ñëwaat Touba chargé waat nag yi dugg Ndakaaru waa Gore sax dinaa leen indil nag ndax Gore dégg naa fa ak gàmm sëñ Ablaye Sylla dina toj réew mi. Moustapha man amatuma toogaay nañ tëj buntu yi Ndiassane lañ jëm ak Thiénaba ak Thiès. mbokk jullit yi comme ni ma leen ko waxee ci tàmbali bi dugg nañ Thiénaba Thiénaba nag di amari Ndack Seck jàmbaari lislaam jooju nga xam ni moo xare lislaam bokk ci héros yi nga xam ne ñoo nit ci réew mi ku tudd gàmm nag tudd leen président Ablaye sila dal ñu yebal man Serigne Moustapha Salim ngir nu ñëw fekk si xalifa bu tedd bi jëf jii nga wax nag defe naa ni budul sax ak taalibe bépp jullit da ciy bég ñi jub màggal juddug sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. bu benn jullit jógee nag dëkk fii ci réew mi mhm. waaye am fu muy sowi nga tudd ko léegi muy taalibe di murid saadix ne kat jóge naa ci màggal def mhm. naa ci la ma war a def mhm. gàmmu la ñu jóg te suñ mag ñu tedd ñi lu ñu am sayduna muhammad moo leen ko jox damay jóg nag fekkiwaat këru diine yëpp mhm. fenn fu nekk ma tàbbal fa sama teraanga lii mooy ak nite kon sëriñ lay Sylla yal na ko yàlla gën a sàmm fii mu dugg nag di Thiénaba Seck te nga junj ko léegi ñu sos pàkk bi ci 1882 ren jii ñuy waajal téeméeri at ak ñeent fukk ak juróom ci gàmm bi yëkkatee teraanga ji def ko te duñ ni guléet ndax mhm. nun taalibe yëg nañ ba tàyyi ay jëfam mhm. euh, daaw rek doy na ci sëkk firnde sang bi teeru leen Serigne Ibrahima ak mhm. teraanga yi nga xam ne moom la fi indi lii daal kéemtaan la sëñ Abdoulaye Sylla nag li ñu koy ñaanal mooy la nga xam ne moom la Seydina Muhammad digee woon ci teral gan yoon ci yàlla Muhammad rot na ci xadis ci Buxaari ak Muslim ak ñeneen ni yéen ci àlla Muhammad sallallahu alayhi wa nee na képp ku gëm yàlla gëm bis penc ba na nga teral saw gan mhm. loolu nag bu ko magum jëm mu toll ni Seyduna Muhammad waxee mhm. am na lu mu dëxañ ca biir la mu dëxañ ca biir lépp nag yàlla na bu mu ko moy Abdoulaye Sylla mii doon sama wëlale jaare ci man lii tiraanga ñi dañuy wax ni njëkkul tey mhm. defati na la wax waaw ndax ku defati kuy dégg defati na mooy ku doon def kon defati na kon nag defati googu muy def nag ñoo ngi ñaan ci guddi yonent bii ñu jublu ak weeru tedd wii ñu jublu hmm. lépp luñ ci màng ci aw yiw yàlla nañ ko bokk yàlla na yàlla jox ko ci wàllam ba mu mat sëkk ndax lii tamit euh, ndimbal la ndimbal loo nga xam ne gani yonent bi ku la ci dimbali dimbali ne la fam la war a dimbalee te aussi bàyyi sëriñ beet euh, yaakaar yi bari na ci moom ba nga xam ni ñëpp dañuy ñëw ci moom kon kii ko dimbali ci loolu ba nga xam ne bari na loo xam dina ko satisfaire kon ñun ñoo ngi koy sant bu baax ñoo ngi koy gërëm. di sant tamit Serigne Assane Sylla ndax Assane sabab bi ci moom la. Mhm. ci moom la sama wóllare la moo waral ñu dem ba ñu xamante Abdoulaye sila ba lii lépp war. Mhm. kon ñoo ngi koy ñoo ngi leen di sant bu baax ñoo ngi leen di ñaanal. Yeah. taalibe yi comme niñ ko tàmbalee rek ñu fas yéene wéyal liggéey bi euh, ci ndigalul président Ablaye Sylla nag yi nga xam ne nii am na yéene distribuer ko ci maanaam fépp fi nga xam ne nii ñu ngi fay màggal guddi guddi yonente bi sallallahu alayhi wa rek mu fase yéene wane fa boppam ba tax na programme bi mi ngi woy tàmbali nañ ko depuis bërki démb tey mooy ñetteel bi fan bi mi ngi nii di woy ñu ko gis camion yi yii nga xam mi ngi chargé nii war a dem ba Ngouma Ngéwul yeneen yee ngi pare pour dem yeneen ñi di Saint-Louis yeneen ñi dem euh, Daara Jolof Cenaba ak Njaasaan ñoom jot nañ démb ci guddi ak euh, Kaolack ba tax na daal liggéey bi rek comme ni ñu ko santee rek ñu fas yéene koy wéyale noonu ba tax na daal ñi ciy sàkku ñaan mboolem jullit yëpp ba tax na lim ciy bëgg tamit yàlla saa borom defal ko ngëneel yu kawe njortam ci bàkki Cheikhul Khadim ci bàkki boroom guddi gi jërë ngeen jëf.